dañuy dañu woote woon tey méga meeting sax la wax pour que gën a waxtaan ak suñu waa koñ xëy na porte à nañ bis waaye dañ leen gën a wax importance yi élection yi am ak niñ ci war a taxawee ak ndam liñ ci war a bëgg ak ndam liñ ko war a amee ndax dama leen wax ni leen ni Rokhaya Diouf soxlawul sëñ Galas Kaltoum soxlawut DG Galoba soxlawul président Macky Sall moo soxla te jàpp naa ne bu soxlaa ñun ñëpp dañoo war takku boole suñu doole boole lu ñu am ak li ñu mën fexe ba am ndam ndax nag dañu bëgg mu am victoire ci département bi le 31 juillet incha allah ci département yëpp lañ bëgg sax waaye rawatina département de Mbacké ndax kat bu fi amee ndam ñu am fi ndam te ndamam suñu ndam la te damay wax ni njiit kat bu nekkee ki dara dafaa war di dogal di fa tere di fa bàyyi mooy li importance législative yi ndax assemblée suñ fa amee majorité man fa dogal man fa tere man fa dindi ah samay mbokk nag seetaanuñ ma samay dëkkandoo seetaanuñ ma samay am yu jàmm samay xel ñëpp a teew wis wisal na fi kenn bougé wu samay collègue hôpital euh, yàgg na depuis 17 heures ba une heure du matin ah xam nga ni yombul waaye ñu toog di xaar lépp rek am fuñ ma teg foo xamante ni man dafay rëy ci man su may wax ci ñoom day rëy ci man ndax jàpp naa ne liñ ma liñ fi ma teg man xëy na sax daf mënumaa wax daal profil bu baax la ndaxte tamit bu dul dara yàgg na ci parti bi euh, ta sonn na ci parti bi te jàmbaar la ci parti bi dañ koy ñaan suñ borom may ko ndam te ndaxte ndam li ndamul ñëpp la comme li ma ko waxee ndamam suñ ndam la ndamul ñëpp la damay ñaan ñu am ndam bu ko defee suñu DG gën a jëm ci kaw ndaxte bu yokkoo ñu yokk tamit bu yokkoo rek ñu yokk te yaakaar naa ndam li bu amee dina ci yokk bu yokkee ñu yokk suñ ginnaaw gën a yokk mais sant tamit jeunesse bi bu baax a baax sama jeunes yi ci biñ xëyee huit ba léegi ñu ngi fi installation sièges yi turbine bi électricité bi yëpp ñu ngi ci bàyyi wuñ benn yoon décourage wuñ benn yoon. waa li ñuy war def teel a jóg rek sept heures et demie fekk nekk sur place am oto yu doy. ndax euh, jàpp naa ni mag ñeeg ndaw ñi ñëpp ay voté xale yeeg mag ñi il faut ñu teel leen génne balaa naaj bee tàng comme ni ñu ko defoon ci local yi dama jàppoon naa ne local sept heures et demi fekkoon ñu nekk sur place yor ay particulier ndax ñëpp mënu ñoo yëg ci oto yu mag yi yor ay oto yu mag dee jànq ji jeeg yu ndaw ji mën nañoo yëg ci oto yu mag yi ñu yóbbu leen ci centre yi bu dee mag yi nag moom particulier nga leen yóbbu ñu voté nga taxaw xaar leen indiwaat leen ñu ne sant bu baax a baax di leen gërëm ndaxte ñu ngi jàppale ci lu ñu yëg ak lu ñu ci kaw ak ci suuf di wax nag di gërëm suñu directeur général di ko sant bu baax a baax di ko ni ko choix bu mu def ñu ànd ceeg moom ndaxte li ma wax sànq dañu ànd mu dugal ma fonction publique mu dawal tuuti mu dugal ma conseil municipal jigéen ñi muy àndal ñëpp maa ci njëkk a nekk conseil municipal galaw ba jigéen bu mu am ci poti man maa ci njëkk a nekk conseil municipal loolu kum doy dara dootu la doy te boobaag léegi tamit yaakaar naa ñu yokku dara wàññeeku ñu koy sant bu baax di bu baax di nag ñëpp rek. moom macha allah mokk na. nee na rumbox doyen moom kenn waxatul loolu waaye teewul am nañ ay mbokk yeneen koñ yi dinañ leen gën a ñaax ndaxte yaakaar naa ki dëkk bi lañ dëkk nag suñuy maam juddoo ki dëkk bi suñuy baay juddoo ki dëkk bi ak suñuy nijaay ki bàjjan am nañ ci yeneen dëkk yi macha allah wax fa dëgg fa yàlla tamit kilifa yu mag am na ci ñoo xamante ni am na fu ñu teg ñooñu ak seen ñu ngi leen fexe ba suñu borom def ba. ñu voteel Benno Bokk Yaakaar ndax mooy bi moo gën ci Sénégal te mooy indi jàmm moom daal mooy bi gën daal pour mu gàttal merci beaucoup di nuyu ñëpp di nuyu Mati baax di nuyu Yakine Diaw di nuyu Yacine Diaw di nuyu Tande Diagne di nuyu Binta Ba mi ñii fu ma jóge ñu jóg moog jeunes yeeg jeunesse bi fu ma jóg Pam Mbaw Jo su ma limee damay juum say taabaan Oumy Ndoye Mami Fall ak sama collègue yi waa la Matlaboul Fawzeyni kenn desul sama borom kër nag moom moom laay tëjee ndax lépp moom la nee naa leen suñu moom bàyyil tey ma bàyyi wallaahi alhazim te musul am damay encourage au contraire di ma ci digal di ma ci conseillé di ma ci conseillé nag loo xamante ni su ma ko defee ndam rek laa ciy gis sant ñëpp di gërëm ñëpp nag kontaan bu baax a baax di jéggaluwaat rek tax toogaay bu yàgg bi merci beaucoup jërëjëf kontaan.